Heavyweight.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 ëpp naa def ëpp naa def yëf yi nag mujj naa mujj ci tribunalu grande instance bu Louga yëpp yi nag nee ñu nii la demee ndaw si jigéen si daal dafa yàgga tiiñal magu jëkkër ji ba saa bu ñu jàppantee rek mu fab la meñam di ko xas góor jigéen bi góor jigéen bi ba ci loolu nag bés ñoom ñaar ñu jàppante bi ko magu jëkkër ji songe ndaw si daal amul lu mu def lu dul langaamu ci awray magu jëkkër ji <laughs> ma ko foofu rek la ñu visé ndaw si langaamu amul langaamu taw a bàyyi waa ji jaar gauche jaar droite xamul nu muy def ci la yootoo butel ne ko ko teel ndaw si doog a bàyyi ca tribunal nag partie sibil bi ñu ngi réclamer ñu jox leen juróom benn fukki junni ndàmpaay ay waay waaye nag li benn avocat bi wax moo mat a taxaw seetlu ndax avocat bi daf ne jigéen munul langaamu ci awray góor langaamu langaamu taw a bàyyi te ku góor ki du réactionné ma ne ko loolu nag mooy wax moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax ba tayit la xew ca mbuur romb na doy waar la wax am ndaw su jigéen soo xam ni daal étudiant la moo fa don jaay boppam te amul carte ba ab waay jàpp ko séquestré ko xaw tut mu ray ko musiba naaru lay étudiant bi mu ngi am ñaar fukki at ak juróom doon def master en lettres modernes moom dal nañu ci ay booru du matin le étudiante bi dajeeg waa ji ci ab baar bu ñu naan le pélican te waroon nekk ci école yi mim réew naka noonu ñoom ñaar ñu waxaale ba juboo ci cinq mille francs ci la étudiante bi woowee taximan bi nga xam ne saa bu amee client moo koy yóbbu ca néeg bi muy rëgalee aywa nee ñu sax waa jooju bis boobu moo nekkoon ñeenteelu client am waa ji nag ab ivrogne la li mu brandir nag ba séquestré étudiante bi mooy daf ne amul satisfaction ci étudiante bi moom dal du foyte eggul fa mu jëm bi loolu amee nag ñoom ñaar ñu jàppante la ko waa ji jàpp séquestré ko ba chauffeur bi moo mujj ñëw ak benn waay dal di koy taqaleeg waa ji jàpp waa ji lapp ba muy bëgg a dee chauffeur beeg waa jooju nag bi ñuy lapp waa ji ci la waa ji dal di jëlee numéro oto bi ba yëf yi mujj ca tribunal ba ñu yeggee ci kanamu àttekat bi nag waxeeti jant bi moo jara bàyyi xel ndax daf ne ko boo génnul ci milieu bi nga nekk topp sam njàng musiba naaru laay mën na la cee dal ndax milieu bi nga xam ni milieu bu dangereux la ci yow te nag yow sa warteef mooy dem topp sam njàng te génn ci njaay mi ngay jaay sa bopp ne ko loolu nag de mooy dëgg ab étudiant bu dem bàyyi ay